الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مشكة الأنوار وينبوع سعادتي والكرام وعلى آله وأصحابه أولي المجد والتداني ورضي الله تعالى عن صاحب القدم المحمدي أبي الفيوضات والأنوار مولانا أحمد بن محمد التجاني ساخي قلوب الخوف بكؤوس المعارف والمعاني وعن سائر الخلفاء مزون الأرباح سقاط الكؤوس التي تنسي كؤوس المدان وراح نحييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بقي يلا يلا نغو ويروينك wii weeru mbég la moom ku lay attaqué xuloo sax ne ko baal na kanam yëpp dana war a béy bi weer la woo ni rawatina fan yii bu la ci mujj rek moo gën bi mu fanu suba bee gën bu tey bii bu ginnaaw suba bay gën bu suba bi bu ginnaaw waat suba bay gën bu gën a waati suba bee hmm. noonu la def ba waaji ñëwaat fukki fan ak ñaar ci rek yoo ko na bi gën a àddina printemps mooy jamono bi climat bi neexee hmm. ci la Sidina Muhammad ñeenti temps moo am faslu shitaa yi faslu sayfi faslu xariif ak faslu rabia jamonoy mbóoya tàngaay jamonoy sedd jamonoy lool buñ la laajee sidina Muhammad ñëwul mbóoya rasulullah ñëwul jamonoy sedd ñëwul jamonoy tàngaay nabee ngi gën a àddina jamonoy printemps jamono bi climat bi neexee ci la ñëw moom yonent bi ku yebbu ku am aaju na ko wax ku yebbu ku bëgg loo bëgg mu faju yéene leen seeni aajo ci jotaayu tedd yi sunu sëriñ sunu soppe sunu lépp di sëriñ maam Abdul Aziz Si bu sëriñ Babacar Si bu alxaaji Abdul Aziz Si mu Seydil Xaaji Maalik mu soxna nday Mariam Si mu Seydi Mouhamadul Moustapha Si Jamil mu sëriñ Babacar Si mu Seydil Xaaji Maalik kii foo koy jàkkee Alaaji Malick ah mooy Alaaji Malick Alaaji Malick yéen maamam Seydi Jamil laa waxoon ni ko jamilu xaalin kaza jamilu tasmiyati xaazal jamala bi madmuunin wa ashkaali ah Abdul Aziz ibn al Atiq xasida bi ma woy ci moom dernier burdu lay génn di ko nuyu muy sëriñ boo xam ne ku yëg ay taalibe sëriñ Maam Abdou ku bëgg njaboot mbokk yi xam ngeen teewaayam bi teewal na kër Seydil Hadji Malick yëpp te Maodo nag mooy garab gi waaye njabootam gii ñooy car yi te garab nag car boo teelal borom yëpp ko Alaaji Mansuur dani sama baay géej la waaye ay dex rek a ko wër هو البحر والأنهار في جنباته كون أي يخشى الزمان من كان في جنبه البحر سيري مام أمر تلا جا مام نك ستو كوي جن يالنا يالنا مدل سفا طالبي يكون تان نانتي يودي سيون جبر جي أك طالبي ينك تي رقي رقادي بغنو كنو سمم سيجل حاجي مالي فنو خيولي يغل نكو ak di nga ñaké jot nga bay sa yitté yépp téwal leen ah si amuñu sa fay togué toogee waaw lu bëgg mu fekk la fa demoo fenn ngir lenn xam nañ la bu wër waye bëgg njabot bëgg xam ni njabot gi fuñu la gisé rek bëgg ñu lay nuyu di nuyu Serigne babakar Gueye mu bax mi mu yiwu mi mu tabé mi di lepp Serigne abdou Aziz mi di sunu soppé bop di sunu xarit sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziara di nuyu imam imam Diak imam Diak ñu ngi koy nuyu di nuyu alxaaj El Hadj Lo suñu xaritu bopp mom sax xam nga El Hadj bon essence nga ma defal bi na de gëj na ma maa ma maa ñëwul damay rus nak xam nga boo ma defalee teraanga benn yoon après ngeen mo war ñewul dama rus a dem dama dama rus. ndax dama fa dem mu duy sama oto ba mu fees dell ak essence ba naan ma saa yu essence bi jeexee dikk xam ne du ma dikk damay rus feneen programme bi waa kay a ñëw de ah, man damay rus a ñëw ko mën a defee nu gën a gaaw waaw kay hélas loo sëriñ bi ku baax ngi nii ku nu yëg hélas nii ku nu fonk sëriñ bi ne bu yàggul dafay ànd ak siise mu sëriñ Babacar Si mii am fu nuy dem ay fajar nee na mu jaar ci station bi nee na bi nu tudd léegi moom la ko defal mooy pelin ku baax la mbokk yi di nuyu waa Zac Mbao yëpp waaye nuyu nag suñu soppee bopp muy sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar Si nga xam ni moom dafa am jekle ci sëriñ Babacar am jekle ci kër Seydil Hadji Malick waaye sëriñ Cissé amit lu yàlla def ci moom am na loo xam ne boo ko dëgmalee te lu dëgg du yàgg te moom boobaak léegi bari na ci ñoo xam ne dañu lay defal doo gis dara ngay ñëwaat na ko jox ma sama xaalis am na gis naa ko di ah waaye moom mii am na lu ko yàlla defal kon Cissé doo lay ñaanal yàlla yàlla yokk la dëgëral euh, imaam xaj Modou Cissé kenn amoo sa fay yal na yàlla yokk la dëggal sa taxawaay ci jeunesse bi sa taxawaay ci Zac Mbao sa taxawaay ci ndaw ñi yal na yàlla yokk la dëggal yonent yi jeex na waaye missionnaire yi jeexoon waaye yow nag yàlla boole na la ci missionnaire yooyu kon nu ngi lay ñaanal gudd fan nu ngi lay ñaanal wér yàlla yàlla yokk la dëgëral nuyu sama waaj yi alaaj démb nee naa ko yéex nga takk soxna de ndax da ngaa gën a mën a way léegi <laughs> démb nag moom ànd nañu fu ci biir réew mi muy ku baax dana yàlla yokk ko dëgëral waaye di nuyu alaaji góor a ñang bu baax nii di ko ñaanal yal yàlla yokk ko dëgëral ak mbooleem ñi takk yonent bi oustaz Babacar Sow di rakku imaam imaam jiite moom itam di ko ziyaara bu baax a baax a baax nuyu sunu jigéen yi nuyu sunu yaay yi nuyu sunu soppe yi kenn amul seen fay mbokk yi xam naa ni waxtaan wi du yàgg moom daal bukki bi mu ne dafa feebar ñu ne ko lu la feebar mu ni sump lu lay faj mu ni sump waaw si man dañ ma sampoon perfusion clinique ba laa jógee ñu samp ma ñaari butéel yàlla xam na ko ba tey sama biir tànk yi sax xam nga boo sibiru da am luy des ba bi may turne xamuma fu ma nekk sax waaye maa ngi doon wax ci darajey rasulullahi ma ne ko yàlla naa wér su may sooxit danaa dem ba xaaj Moodu imaam Moodu gis ma so soppay Seydina Muhammad yi séen ma waaw ndax boobaak léegi nu mu yëgle ni tey jii dinaa ñëw ma xam coxeel gi dox suñu diggante kon kóllëre googu yàlla yàlla sàmm ko ci daraja yi rasulullah nuyu suñu mbokk waa kër Cheikhul Khadim yi fi ne waa kër Cheikh al yi fi ne maanaam ëttu kër yi diine ji nga xam ne ñu dëkkee ak mbaaw mu rafet lool ku xew la ñëpp ñëw ñoom yàlla yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yi rasulullah mi ko jur moom yonent bi ku tëy tey mooy forte personnalité moom yaay Rasulullah Amina nekk na Makka ba ñu jël Abdullahi may ko ko mu set ci bépp tuuma Aminatan naqiya Aminatan dooni Amina de mbir moom muy ku nu moom yaay Rasulullah diw bëgg naa koo takk waaye dama koo wóoluwul. waaye Amina set wecc Abdul Mutalib jàpp ci loxo Abdullahi samaam mi Abdullahi ni toll ci dix-huit ans fukki at ak juróom-ñett xam nga bi muy dee ñaata la am dix-huit ans mois papa Rasulullah dix-huit ans deux mois la am bi muy génn àtte da may laaj lu tax dix-huit ans lañ ko may Amina guddi gi ñu ko ko joxee ca la leer da jógee ci moo dem ci Amina un mois la dund Amina dem saak cërëm bi muy tàggu am yi def ni ko maa ngi dem jaay yi su ma ñëwee mëbale la sa néeg bi xam nga lu ko toll daf ni ko sa jëmm jii moom a dàqal mëbal Abdoulaye ni ko dama bëgg su ma ñëwee jëndal la or jënd la soa teral la ndax jigéen dana koy teral amina ni ko xëy jàkkaarloo sa kanam gu rafet jii sa bëñ yi sa ree ju neex jii moo ma dàqal or moo ma dàqal soa Abdoulaye ne ko ah, dama lay teral de munoo wax ba du ma def un mois la ñu dund ñoom ñaar un mois benn weer la ñu dund na ba jaal di wàññeekuy feebar biir buy metti moo mu jaar Médine mënul continuer bi caravane bi mu àndaloon di waa Makka mu ngi leen jiitu leen ma suma tenee dinaa ñëw wax leen sama bàyyi damaa feebar ñuy séddu caravane bi Abdul Mutalib ne ana Abdullahi ñu ne ko ma nga Médine biir bàyyi metti waaye nee bu tenee dina ñëw mu xëcc xaalis taawam ne ko dama jëli Abdullahi xaalis nëppatal naa góoram dem di dem mitin Abdoulaye tane na di ñibbi si waat ñu laaj Maodo fu mu génnee àddina Cham la mbaa Médine mu ni non du Cham du Médine du Makka bi mu génnee Médine jëm Makka ci diggante Makka ak Médine fa la génnee àddina tey Seydi El Hadji Malick xadra bi abwa Abdullah xiina mada shahna lil hamli naza ashfihu lkarim kon un mois yi mu def ci voyage bi ak un yi mu dund ak Amina muy ñaari weer góor gi bi muy dee nabee gi am ñaari weer ci biir yaay boo amee bàyyi bu dee xalaat rasulullah nga am yaay mu dee xalaatal Seydina Muhammad nga am na juróom benni doomam yonent bi amul benn doom bu dund 30 ans amul Fatimatu Rasul mi ngay dégg 29 ans la am Roqaya 29 ans ne 28 ans. day jot vingt sept ans Umu Kulsum mi ngay dégg vingt deux ans rek indi Xaasim amul trois ans Abdullahi amul un an et quelque la am Ibrahima mi mu mujj am ci góor maara yu jur ko ñi ne dix huit mois ñi ne onze mois rek la dund loolu yàlla def bu nekkul woon ak moom dara du am Xaaji Maalik ñi Amina mi ko jur ak Abdullahi mi ko jur ñoo bokk benn maam Amina ñii jur rasulullah ni askan ni mo bokk Quraysh la wax bokk ko jur Abdu Manaf jur ko na jur ko kila barko bi usman moy yaayam Abda jur ko ko ko sey ko jur ko sey ko jur kila abdullah Abdul Mutalib Hashim Abdu Manaf sey waye Amina am na ñett ñoo xam ni moom ñoo bokk nday ak bay ñu ci ñaar ñan la mu ni ñaari goor la ak ñaari jigéen mooy aswad abdul yahud furayra ak faaxila buñ la laajee njool makka ñi bokk ak ndeyam baay ñaar ñu góor la ak ñaar ñu jigéen waaye dina dégg histoire ñuy wax ay ndijaayam yu nekkoon ca taayif yi gi ni ñooñu seeni bàyyi ak bàyyu amina ay doomi bàyyi lañu te mooy ñoom abda yaaliya ak mas'ud ñoom habib ñu ko boole woon ay xajake xale ki dof ñuy sànni xeer joor màkka di yuuxoo rasulullahi waaye góor gi am na ñeenti jigéen yu bokkul ci famille bi ñëw sëy bi ci famille bi waaye bokkuñu ci waaye ñii mën a limal lépp ci askan wi la ñu bokk da ngay dem tekki sa mbokk indi takk sa mbokk indi ci am na ñeenti jigéen ñoo xam ne bokkuñu ci askan wi waaye sëy sëriñ fa am fa njaboot ñaar ñi min min bani tamim kii واحضر له لبنا هؤلاء أدع ngay jël say bagage ak eh, doo def xaw ma dégg moom dégg nga dem ba gaaraas fekk fa oto bu paan ngay jël say bagage ak eh, doo def dem nag boo ko bëggee def da ngay kàllaal bi ci kuy dem waaye seen maam dafa fexe ba mu xàmmee Rasulullah Maodo waxuma rek bëgg yonent bi yam ci waaye Seydi Hadji Malick dafa fexe ba mu xàmmee. bari nañu ko tagg de baax na bari nañu ko way lool loolu baax na de bari ñu def ci moom ay salaatu ala nabi baax na ndax tey mën ngay jël nit di ko tagg waaye doo ko xam walla nga koy way ci mbaax di ko way ci jikkoom waaye taxul nga xam waaye Seydi El Hadji Malick yow bi yàlla nekkee moom dong dara amul ba rasul ñëw fi mu jaar ci leer ya wax la mbokk bi wax la maam bu ne bu leer ga nekkee ci yow jamono boobu na mel wax la askanam ni mu lay waxi tànku ndeyam tànku baayam góor ni la lay waxi tànku maamam jigéen ni mu lay waxee Abdoulaye mi ko jur ñi mu bokkal ndey ak baay la lay wax ñi mu bokkal baay kese kese kese moom Seydil Hadji Malick du yem ak yow foofu Hadji Malick dalay toppal Rasulullahi keroog bi ñoo nee Abdoulaye Amina la ca xew bi ñu ko mbee muuree juróom-ñeenti weer Amina nee na bis bu ne la ca xew moo doon wax ko ba keroog gane àddina mbokk yi ci waxtu wii la woon ci biir jamono keroog la jamono yëkkati ko. maa ngi ñaan ku ci nekk nga dendal jox ko loxo ne ko félicitation te eh waaye daal félicitation waay ci boole gi nu yàlla boole ci xeetu rasulullah félicitation ay waay ku ne na félicité moromam laki mujisaatun ajazat kulla wara ci boole gi nu yàlla boole ci xeetu rasulullah laka mujisaatun ajazat kulla wara ana ñu bëgg rasulullah yi المعجزات العجب كل الله وخلن صلى الله عليه وسلم لك معجزات عجزت كل الورى وأكتب لي لي مقر ينتبي لك معجزات عجزت كل الورى وخلن صلى الله عليه وسلم لك معجزات عجزت كل الورى وخلن صلى الله عليه وسلم لك معجزات عجزت كل الورى سيد الحاج مالك باي طيب. لك المعجزات عاجزت كل ورا مولد النكر جدك رسول الله سيد الاولين عاجزت كل الورى سن بابا كربوبو اسبكتاكل كين خمول سيد الاخرين عاجزت كل الورى كرم لبل كسرى دان لك معجزات عاجزت كل الورى صاوت ايجاب النخ جنيا لك معجزات عاجزت كل الورى نجول مكة جدك لك موجزات أعجب كل الورى فارس نجام تكدا لك موجزات أعجب كل الورى سيدنا محمد جل سفر سفيدا لك موجزات أعجب كل الورى كرام لن تكمل شيء لك موجزات أعجب كل الورى غير مجنب lay nuyu doo ko gis. laka moo bi daatan ajazat kulla wara. Seydi Xaaji Malick nee na keroog juddu nga xam naa la xel. laka moo bi daatan ajazat kulla wara. Maodo ne keroog la ñu samp ñetti drapeau. Seydil awwalina ajazat kulla wara. benn penk benn soow benn ca digg kaaba. Seydil axirina ajazat kulla wara. ngir màgg لقد وقفت وقفات حادثة الأولى وقد ثلاثة هل انتسبت معجزات عجبت كل الورى في كعبة مشرق والمغرب تسمي لك معجزات عجبت كل الورى كرام مانو نخمنا لك وجدك رسول الله لك معجزات عجبت كل الورى حاجي مالك نيل لك وخمناكو سيد الأولين عجبت كل الورى كرام رجل مكة تدو إندالك 32 سيد الآخرين عجبت كل الورى limuta xëpp gane àddina ca bis ba matagul seconde nga wax Maodo ne xam naa la mu wax laka mujisaatun anjasat kulla wara njool Makka رب رفيع فكموجزات أعجزت كل الورى تمام وخيل سبحا لكموجزات أعجزت كل الورى وخيف من ينبي جول مكة جدو دفا سبال يالا لكموجزات أعجزت كل سمع الله أكبر كبيرا لكموجزات أعجزت كل الورى والحمد لله كثيرا لك معجزات أعجزت كل الورى وسبحان الله بكرة وأصيلا لك معجزات أعجزت كل الورى حاج مالك نيومي سبابة مقباضا أصابعه لك معجزات أعجزت كل الورى مثل المسبح يرنوع الوزاهيم سيد الأولين أعجزت كل الورى وأنا لبك رسول الله أنا جيد كل الورى waaye bokkul la nit ñi moom rasulullah yi لك معجزات أنجزت كل الورى li ngay màgg ak nabi weer la koy màgg لك معجزات أنجزت كل الورى samaam ne li ngay màgg weer njool màgg bés la koy màgg لك معجزات أنجزت كل الورى avant muy am ñaari la nekk ponkal لك معجزات أنجزت كل الورى ñaari weer rek la njool màgg am tàmbali جسد كل الورى ñetti weer la am jug taxaw mu rasulullah لك معجزات عجزت كل الورى bi mu amee ñetti weer muy jàpp lu miir ya لك معجزات عجزت كل الورى dox nga tàmbalee dëgër ci juróomi weer لك معجزات عجزت كل الورى doxam gaaw na bi mu amee juróom-ñaari weer لك معجزات عجزت كل الورى déedéet juróom benn weer la dox nga gaaw وجزت كل الورى samaam nee na bi muy am juróom-ñaari weer mu mel ni ponkal buy dox sayyidul awwalina ajazat kull alwara bi mu amee juróom-ñaar juróom-ñetti weer ca la tàmbalee wax sayyidul axirina ajazat kull alwara njool makka am juróom-ñeenti weer wax deset wi laka mujizatun ajazat kull alwara góor gi ni xaram shababuhu mag rasulullahi maa gulaamu ndiri xale shabahu ndiri mag yeewoo wala yow mu bésam sëru mooy sunu weer waxaanu sunu at sëru sunu karam yi mooy weeru aji tedd yi alaaji Maalik mi xabaar am na rasulullah yi bi sëru ci ñaari weer fil diini xiyaamu ñetti weer teel a ñëw wa fii daali li mu amee ñeenti weer xanaa mujj na mu si kër juddu daal yi di jàppul nii nga waxoon marché tàggatul dox ga fii in ci juróomi weer la wa asraa dox ga gaaw na fii waaw in ci juróomi weer wa fii zaay yi bi muy am juróom-ñaari weer yasaale rasulullahi saaya muxtasimi comme doxinu aji farlu ala ji Maalik bi fii xaata takallama juróom-ñetti weer lañ doon mën ko waxee fii too it saaku juróom-ñetti weer wax dëgg yàlla fii ay yaram yi fukki weer bu sànnee wu ñu mu noppaloo am solo bi suñu gën jàmmaat bu existé seen maam mi min xam ne amee la njëkk muy am ñaari akaana la nekkee jafan bi mu ponkal waaye bi mu ne ñëpp kaana la nekkee sax àdduna bi di borom teg gi moom rasulullah yi góor gi ne yàlla xoolee lii laay parce que may yëngatu yàlla dëgg ak yi ni mbaa ko ak yooyu yoo xam ne sobamaa gën a firi bi bi yéen nana bi jëm moo la topp rasulullah yi jëm alaaj ma la topp nana bi campé alaaj ma la di campé nana bi de campé si laaj ma la di campé deux ans deux mois fàttali ñu dëgg ba quatre ans jii juróom-benn yi ak ndeyam dee na juróom-ñetti ak maam ñi dee na amasama nii وما بجدي زاغلني وحاكمي وعلو شرما بير كرامي فكي على نيا تو بير دير سواتنا 18 ans ماك نك كو يولو مول تودي كو محمد الامين 28 ans فك نا نيا خير حرب فيا حب فضول 25 ans بير لي كما لي بو دو جدي جيل لا خديجه تو بيدو كو وي لي ابن اسد ابن عبد العزيز ابن قصي جدي لي دو دير محمد رسول الله على جا محمد رسول الله بانك من محمد رسول الله جلبم جيبل جرماك 32 وسيما روي المحيسكو كانت يعلمني محمد رسول الله يا سيد الكونين جرجف إمام آه يا سيد الكونين أنا معك رسول الله يا سيد الكونين أبو بكر يا سيد الكونين ومن دعيني من يا سيد الكونين ndax yéen a ngi yëg rasulullah ya sayyidal kawnayni yow mi nga xam ne yaay sama ñaari univers te mooy addina ak allah. yaa alamal huda. ci jaww ji dina soppi mooy drapeau bi moom rasulullah. yaa badra timmi. muy Seydina Muhammad yaay weeru mat bi. fi wujudi alal mata. fi wujudi ci mindi fi alal mata ci leef. yaa xayra xalqillahi nee na ko yow mi gën ci mbindeefu yàlla yi yaa man faw sarmata aku tappe ko ya rahmatan ne la Seydina Muhammad mooy jëmmi yërmande lil alamina ñeel mi def yëpp waaye Seydina ak Seydina kuréel ya xayra amali yow mi nga xam ne yaay dayoo yi nit yow rasulillah yaa ko jël sata ne la Seydina Muhammad mooy feeñal ngëneel yi bika naalatil aafaaku nee na ko bika ci yow naalatil aafaaku ci la gox yëpp amee lan kullu fadilati jërëjëf góor nee na gox bu ne góor jërëjëf aram na gërëm yi ngërëm la nag jërëjëf moo ko amee ci dara di rasulaay mbokk yi soo ko jëlee ci moom yàlla ko yàlla dina doon la neexal dugg si noo xam ne baax wax naa la ne ko amee boobu boobu ñaari lu yaas yu war laa génne ah suñu Babacar jërëjëf yi yu sii ñu war laa génne xamoo foo jëm amoo koo woo amoo ko doon ci ruq bi ngir génne fukki la bu di boobu da ngay amee nation bëgg si la nga xam ne baax maanaam daloo daloo xel mi ngay soo bëggee du jeex du xew du jeex du xew te moom la suuf kon maa ngi ñaan takaatee la julli nga yeewu ba gëmintuwaat te julliwoo benn yoon ca suuf lay dee leen bàyyi lu ngeen def ni seen waa la ndax lu jeex moom moom la ñu suñu bëggee ci moom yàlla na ko yàlla defee loolu waaye damaa xam yàgg jàngale ak soññee keneen bi ñuy jàngale sëriñ Mame Abdou Aziz mi bu fi bàyyi ko am na keneen ñu koy xaar waaye digganteem ak imaam xale xam lu moo koy def imaam nag moom ñi ko ko sopp ndax fulla am moo la suulaa rek lu mu jàppale am ko kat maa ngi

te kuy ñëwaat yàlla ko yokk ci dara di Rasulullaah wasalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu maa ngi leen di invité ji ñëw ci sëriñ Siise mu sëriñ Babacar Si moom dootul bi te wakaam wakaam alxames ji ñëw ñëwul na waa baaw nag bëgg na waa baaw ñëw incha ndax bis la boo xam ne sëriñ Abdul Aziz ñu si jàpp ok ndax si jàpp nee na ngeen ñëwee moom ngeen ñëw ndax bisu sëriñ sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar suñu bis ñëpp maa ngi jégalu ci kàddu yu baax a baax wasalaamaaleykum wa